ay droit am nekk rek waaye naka dañ ko nar a xeex rek ngir mu bañ a bokk ci élection présidentielle ñu dënmal ba tey rek bu ñu ci yooyu les information ba rek mu nekk en bi ñu dënmal yemoo ko fukki fan ak ñaar ci weeru octobre moom Ousmane Sonko ak ñi nga xamante rek ñoom ñoo ñu defal leen ànd ak xel mu dal sëkk ginnaaw bu ñuy defee recours fi nga xamante ne moom mooy ci tribunal bu Ziguinchor jamono ji nag xel bu dal dëgg rek lañ ànd ci mbir mu nu mel ndax jàpp nañ ne rek dinañ ci am ab développement maanaam ak yokkute waaye nag forme yi nga xamante ne rek jamono ji ñu ngi koy commencé di ko évoqué kii di maître yaañ daal di koy xamle moom nag la mu daal di xam ne ba tey rek moo di recours bi nga xamante ne rek déposé woon nañ ko ni ki alxames bi ñu génn ki nga xamante ne moom mooy maître Diagne ak ñi nga xamante ne rek ñoom la àndal ay huissier ak ay patriote ku ci mel ni Amadou Ba ñu ràññee lool ak ki nga xamante ne moom mooy Abdou Sané nekk coordinateur provisoire foofu ca commune bu Ziguinchor ñoom ñoo amal nag mbir mu nu mel bu ñu ko foofu nag dañuy àddu rek jugale ci kàddu yi nga xamante ne kii di Branco daal dina koy xamle moom nag la mu daal di xam ne rek mooy Macky Sall nag ji rek dafa bëgg a tëj université sénégalais ndax lan ndax élection présidentielle yi ñu dët ma ci atuma 2024 waaye nag ragal dong rek moo tax mu amal mbir

mbir mu nu mel nag dara amul ci ndax ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ndaw ñi jamono ji nag ña ngay wutali euh, gaal yi ndax dañoo jaaxle lool xamatuñ sax fu ñuy teg seen tànk réew mi ñak na liggéey te kii di union européenne ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy yor droit international jamono ji nag ña ngay jàppale Macky Sall ci boobu leen mbir ginnaaw nag gis nañ ne rek dafa gumba tëx lu rek bañ ne du dégg waaye nag li ko ci fekk rek jamono ji mooy sacrifier bu baax ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ab jeunesse am ba tey rek moom Juan Branco la mu daal di xam ne rek mooy lu toll ci 500 prisonniers politiques nag ñu ngi leen jël rek làq leen jant bi waaye nag yóbbu leen fi nga xamante fa la mbaxana doone benn teguñu ko fenn ndax xeex bi nga xamante ne rek ñu ngi koy xeexal ba tey rek moom ko Juan Branco mu daal di xam ne rek lu toll ci 1600 hommes maanaam ay góor ak ay jigéen nag jamono ji nag am nañ courage bu toll ni nag di xeexal seen réew waaye nag buñ seeto ba ci biir rek am na ci ñoo xamante ne rek ay soixantaine de frères lan maanaam daal lu toll ci juróom benn fukki ndaw ak jigéen ñoo xam ay góor ay jigéen yoo xam ne jamono ji ñoom ñëpp nag dañoo ñàkk seen bakkan ci boobule xeex waaye nag abandonné bi nga xamante ne rek nguuru Macky Sall nag daal dina koy abandonné jeunesse am ndax lenn rek waralu ko rek lu dul bëgg nguur waaye nag ñoom nag dinañ wéyali bu baax nag joxe nak li nga xamante ne nag moom mooy seen bakkan euh, ba nag jàmm des ci réew mi rawatina nag lii di démocratie di xaddu Juan Branco du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi.